li président Macky Sall di def ci biir réew mi lu am solo la lu nit ñi ñee la lu réew yenen yi ñee la tax ren ci biir atu ren mi mën naa ne recevoir nañ luy tollok ñetti délégation yo xam ci réewu Afrique lañu ñu kon lu muy wone fofu rek moy pertinence programme yi nga xam président Macky Sall mu ngi koy def waaye pertinence bi am na solo waaye li ci gën a am solo mooy xadara bi ñu ci boole pour réaliser li nga xam ne moom mooy wàllug yoon yi ci biir réew mi mooy wàllug forage yi ci biir réew mi wàllug santé wàllug euh, éducation ak nu mel noonu parce que nag wax naa ko dama koy waxaat également euh, suñu programme yi nga xam ne am nañ ko ci biir ministère développement communautaire programme la yoo xam ne dafay synthétiser. Euh, mbëggeelu président Macky Sall jëm ci ñi nga xam ne ñooy néew ji doole ci réew mi waaye aussi dem ci ci population yi nga xam ne dañ leen a fàtte woon démb ak bërki démb tey nag daf ne su ñu nekkee ci réew warul am ñaari doomu réew benn doomu réew la ñu war a doon ki nekk ci dëkk bi euh, ci dëkku taax yi ak ki nekk ci biiru euh, euh, monde rural ñoom ñëpp la ñu war a traité au même pied d'égalité moo tax encore une fois de plus dañu gën a ñaaxaat suñu bopp waaye ñaaxaat collaborateurs yi ci li nga xam ne mooy programme yi nga xam ne président de la teg na ko